asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal 7 saa su nekk ñuy ànd ak yéen teg contentement ak fierté waaye saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci di bég ci yéen ngeen ñu toppee euh, fii ci biir Sénégal 7 waaye nee naa la Sénégal 7 mooy site bu baax bi nga xamante ne àdduna wërngal këpp moom la ñuy seetaan waaye nag tey dañoo invité ko xamante ni tubaarkàlla nee naa la international la muy di kan di pendoo gisee ñu invité ko tey ci suñu plateau euh, Pendo gisee maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax a baax faramaaren bi. di wax asalaamaaleykum waa senegal 7 maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di liggéey rawatina borom kër gi tubaarkàlla ci personnalité am parce que kenn ku ne tubaarkàlla waaye gàtt dégg-dégg war koo xam borom personnalité bu bari bi laa koy woowee man garde am moo ma ne xam nga ni day am garde maa ngi wax asalaamaaleykum di nuyu waa Sénégal yëpp ah di nuyu waa adduna bi di nuyu waa Gambie di nuyu mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan senegal set commentaire kat yi négatif like ou non like. yéen ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax di sant yàlla bu wér nag di julli ci Moustapha di sant sama wasila sëriñ Babacar si si di faagay demam ci jawaar di wax ñëpp asalaamaaleykum macha allah Pendo ñu am contentement bu baax a baax di rafetlu nag wisi bi nga ñu wisi ah, tey fii ci biir euh, euh, Sénégal set ñu ciy bég bu baax a baax a baax ah, Pendo euh, dañuy daal di door rek daal di dugg ci biir waxtaan wi Pendo sa complicité ak a Guissé ñu gis ko ngeen di def ay vidéo yoo xamante ne nii dafa neex àdduna. Hmm. ñuy laaj loolu réalité la wala. Demba waaw Demba daf ma yeb rek parce que sama tofa la moo topp ci man bëgguma ko sax Samba laa gën a bëgg ko Demba mais bon <laughs> moom day taxalu ci man pour pour doxal yëfam dama ko koy nangul dafa mel ni tey ma doon wut promotion ma dem si nit pour mu def promotion donc Demba li muy def ci man yëpp maa ngi koy baal xam ne day wut buzz. day wut ay promotion garaawul lu mu def baax na sama tofa la. ci Demba dem moo topp ci man waaw moo topp ci man te xam bi mu bi mu bi mu nekkee xale. dafa amul woon benn xorom. Demba waaw bi mu màggee di saf saf lu donc si man la bëgg a wéeru te man duma moromam donc dama koy baalal. waaye voilà euh, euh, Demba moom nee na moom à chaque fois moom moo lay may buzz. na jël yëpp de toute façon lu ñu am si suñu yaay lañ koy yóbbaale min fari karama ca ngent dem bay sa njaba mi ci Podor yudu mi ci ndand ak jaaji mi ci ceeb bi daan dikkeeg may saa ñaan ak sam papa gisee aliment bo donc lu ñu am rek foofu la ñu ko ñaan ñoo yem na def lu ko neex rek waaye lu ñu am rek nañ ko bokk yóbboondoo ko yóbboondoo ko waa kay waaw ah. Pendo dañuy dugg ci waxtaan wi mhm. ñu gis euh, fan yi xëccoo bi am ci géwél yi mhm. xuloo bi mhm. kii naan fii kii di xëcc fii ku nekk di xëcc ci sa côté Pendo loolu nan nga ko gisee waaw ah, naqari na ma nag toujours parce que man euh, sax du ma géwél man ñeeño laa man maabo laa donc man euh, su ma bi ma déggee dabaay wax ko mu nekk ci dëgg nag da baay baar li mu wax dafa nekk dëgg gu wér péng lu nit dul dindi parce que nag buñ nee foire kaay ma jaay la kaay woyaan amu fa kaay ma jaay la moo fa amoon du dëgg mhm. donc niñ ko doon defee rafetul woon yaa ngi dégg mhm. parce que da ngay dem pour jënd cuuraay wala nga dem pour jënd yére wala nga dem pour jënd dara te fa nekk daanaka ñay jaay ñëpp ay géwél lañu dëgg la xam nga foo foo foo foo foo fekk ay géwél yu dajaloo jël seen xaalis jënd seen i marchandise di jaay kon defe naa ne boo fa demee jënduloo nga defa di wayaan ñay jaay ba nit ñi gisatuñu nit yi war a jënd donc loolu c'est un problème kaay ma jaay laa fa amoon waaye kaay ma may la amu kaay ma may la amu fa woon kaay ma jaay la moo fa amoon donc waroon nañoo jaay ba ci fin bi ba ci tëjtal bi ñun ñu ambiancé ko nag ñu mën a ñëw vraiment li Dabaye wax am nañu ko métti lu mais man dama ànd ak Dabaye 1000 pour cent parce que li mu wax dafa nekk dëgg des fois il ñu defaraat toogaay yi doon géwél warta tax nga doon jaam doon lawbe warta tax nga doon jaam doon ñeeño warta tax nga doon jaam parce que nit du la may ba pare jéppi la dama mës a dégg Aïda Samb mu ni maam maama moo ko waxoon sam pas jabare Samb pas Samba jabare Samb Samba jabare Samb waaw ma sunu maam jooju tubaarkàlla moo ko waxoon Aïda Samb moo ko ne woon mhm. Aïda bul nangu kenn ku la may ba pare di la jéppi donc man waxam boobu moo dama koo téye man kenn du ma may ba pare di ma jéppi man benn géer du ma yab benn géer du la yab barki Serigne Babacar xam nga lu tax mhm. duma la ñaan di la xëcc soo ma yëgalee sa xew ma sañse lu rafet dem lu fi am oto fi am yaa ngi koy dawal. du dëgg. borodee fi am yaa ngi koy sol or yaa ngi ñoo ngi koy takk est-ce que li ma bëgg a wax. Mhm. kon lu fi waral lool nit ku ne li nga war a am. defe naa ne sa géer bu la wooloo boo ñëwee dina la ko may waaye nag dem ci foire yi di ñaanaatoog di ci yenn xew yi sax day dem ba mujj kilifa yi am na dëj yoo xam ne kilifa yi guddi li ñuy jaale si. parce que boo fa demee ba ñuy xëcc sa yére pour lan te la koy xëccale kaay la koo ci dem këram sëdd lay añee. ni nga gis si xew yi nii ñuy buuxanteeg di def ay yëf ak ay yooyu noonu ka mu nekk man ñeeño bii toog ka mu nekk géwél bi toog ka mu nekk lawbe bi toog koo ci dem këram buñ la tagalee boolu añ sëdd la ñuy añee seen maama leen tooñ du dëgg non non non seen maam bu leen tooñ itam liggéey baa ngi bëgg a yàqu parce que bu demee ba ay nit nit yi fi ñu war a liggéeyee ñu dem def ko bërëbu wayaanukaay ba kenn xàmmeetul nag géwél ak ak géer kenn xàmmeetul kuy lawbe ak ku dul lawbe parce que léegi géer ñi sax dañoo dugg ci métier mi donc métier bi li ko yàq c'était ça nit ki mën nga am mën nga doon géwél ba pare di jaay sa njaay am na géwél yoo xam ne duñu wayaan dañuy teg personnalité rab yi duñu wayaan mooy ñiy jaay mhm. kon nag buñ demee ba ba ba ay ay xas ak ay xëccoo ci biir xew yi su waree am nañ waxante dëgg bu diw nee dama ni nee ko ba taxawal nga xaar ko nga bàyyi mu doxal mhm. xëccoo bi ñuy xëccoo ni lan la géer ñaa ngi ñuy jaxase te yëguñu ko ndax géer gu am xaalis léegi fi ñu toll nii dafa dafa doy waar boo toogee nii kii toog nii ñu am ay farandoo xam nga yooyu noonu day dem ba mujj à la limite dañuy yàqal nit ñi man may ma ay milliards mais ci kaw personnalité nga koy may dew ma ci benn xew di xëccoo kenn barke Seydina Mohamed ko def dëgg la Pendo ci la ñu xusee rek ci li nga xamante ni mooy Ismaïla Mbaye ak Omaro ku ne gis na leen keroog xew Wally Seck bi ni ñuy xëccoowee ba euh, ki nga xamante ni moom mooy Omaro mhm. ni day woo sécurité yi nañ def naa nga xëccoo boobu Pendo ba tey rek non non man si man si ma ko gisee kaf lay wax ndax Omaro amul benn droit bu muy waxee eh, kii kaa leen génne ko Ismaïla mbaay nag mbalak day mbalak waxam dafa neex lu mm. waay gàtt dégg-dégg waxam dafa neex Omaro dafa saf xorom ñoom ñooñu te waruñoo xëccoo Ismaïla mbaay la ak euh, euh, géwélu Amadou Ba mm-hmm. ak Omaro ñoom ñëpp ay nawle lañ te nawle daa fort li Ismaïla Mbaye wax te kanu jàkkoor kañu tiimoon di wax di ko waxal lu baax it seen nawle la donc foofu ña nag daje ñëpp ay nawle lañu amul ñoom ñeent ñi taxawoon ñëpp kenn du ci géer Wally sekk du géer Omaro du géer Ismaïla mbaay du géer Mamadou Mbaye du géer donc nañuy nañuy rek éviter yooyu toujours xëccante boobu ñuy xëccante baaxul parce que nit yi seetaan ñoo tax parce que ki ñu tiim seen nawle la géwél la te ku ci nekkoon ko tiim naan ko eh, Ismaïla Mbaye eh, nawle dafa foor nawle ah, daa foor Omaro naan ko déglu ma naw daal léegi déglante ñàkk déglante boobu nag mooy indi yu baree bari ñu ne dañ doon xuloo du xuloo dañ doon xëccoo wax ji parce que kii dafa bëggoon dem te xam nga euh, wax dafa am point taasu dafa am point gis nga wax kenn du wax ci biir biiri wax wax ci biir biiri wax day yàqi wax dëgg nit buy wax danga naan tekk ba mu pare bu nee tekk yow nga doxal xew sax léeg nga dem fa nga gis koo xam ne nit day wax nga bëgg taasu baa nga bëgg a way day gàllankoor li ngeen doon def yéen ñaan ñëpp kenn du la dégg te kenn du ko dégg te kenn ku ne dañ la faa indi pour déglu la du dëgg. loolu moo dox ci li nga xamante ni mooy diggante ci euh, am ak Daba Seye mm-hmm. Mm-hmm. gis nañ leen ci li nga xamante ni moom mooy di xew euh, ci li li nga xamante ne mooy di xew euh, Alioune sekk Alioune Seck bi euh, xëccoo bañ fa nekkee woon euh, muy Daba Seye ak ki nga xam ni mooy Mor Thiam ndax moor Thiam mi ngi naan ko ñu ngi sànnante daal ay kàddu. ba tey la boobu réeroo la mi ngi wax ndax mi ngi yor nii si loxoom boîte à bijoux bu mu doon wax réeroo la Daba yuuxoo fële di waaye moom tamit bu insister Daba Daba di continuer na bàyyi Daba continuer après bu Daba paree mu pare ñoom ñoo ñoo bokk seen benn maam ñoom ñoo noonu ñoom ngay gis nañ ci xew yi noonu bu kenn foogoon ni histoire la du histoire dañoo déggantewul ba pare ñoo bokki maam bu ñu pare ñoom si seeni maam. nga ne Daba Seye bi mu ne der moor daa waroon na daa waroon a bàyyi waaw. parce que kon yow toor bi moor nga koy jox. non non du ma jox kenn ñoom ñaar ñëpp toor bi du ma si jox kenn parce que réeroo la rek. moor a ngi joxe fee dabaa ngi juuxu fa mën na am que sax plan yi ñu nekkoon bokkul peut-être xol bi toj nag gis na lu tax mu war ni sàll ak ni ku ni bëreet wax parce que des fois am na yenn xew yoo xam ne embouteillage bi day bari mais man je me suis dit que génn ñi ñoo war di def lenn gis nga xew dafay am organisation mooy boo ko jëlee nga teg ko ci loxo moor moo am na artistes yoo xam ne foofu ku fa ñëw dañ laa woo man gisuñu ma fa parce que woowuñu ma kon gisuñu ma xam nga gisuñu fa keneen ak keneen donc génn ñi dañuy organiser seen xew yi boo ko tegee ci loxo kenn xamal kon list bi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw barki Dembo Ndiaye doomu Youssou Ndour bi def na fi ene ene bu réglé bu normal amul déréglé parce que man la ñu joxoon organisation bi maa takkoon micro ba maa doon dugal artistes yi te dama leen dugal normal parce que ki fa jiitu mooy mooy njëkk a bu xadi wayee ba pare heure xadi jeex na xadi day wàcc may keneen mu way est-ce li ma bëgg il faut que tam ñuy bàyyi seen xel ñoom géwél yi nga xam ne ñoom la ñuy jox xew jàmbur yi parce que des fois dañuy indi réeroo ay ñaar ñu bokk maam te jaru ko géer boo jëlee sa xew jox ko moor xamalal ni moor ne ko diw ak diw dañuy ñëw benn moment bii bu gisee diw ñëw mu bàyyi ko moom diw moomu doxal parce que li ko yàq lu bari nag loolu si la bokk parce que da ngay invité ay ndaanaan ñu ñëw nga jox kenn sa xew yaa ngi dégg mu géré ko foogoon ne kenn war ta wax moom rek a war a wax te loolu du yoon soo joxee moor xew da ngay wax moor ne ko moor dat sàngam pend gise dina ñëw su pend gise ñëwee suñu joxee ba fii joxal ma ko micro bi sans autant mu laaj ko mhm. parce que problème bi foofu lay nekk est-ce que tamit pend du seen bopp ñoom ñoo leen di jaxase ñooy jaxase géwél yi wala war a defaraat seen toogaay géwél yi ñoo a defaraat seen toogaay te xam ni man boo ma joxee xew keroog déggoo may la doomu Youssou bi bi ma joxee xew bi Vénus maa ngi koy nuyu di nuyu jëkkëram ju baax ci tubarkàlla Diop di ko nuyu bu baax biñ ma ko joxee dañ ma ne naa naa naa xool artistes yi ñëwoon foon pour way dama ñëwoon pour régler artistes yi pour ñu xam ne kii bu wayee ba pare day taxaw benn moment bi xadim bu baree way ba wayam yi xadim bu dama ko jugal nga dem ci scène bi nga way bi xadim bu paree ci way bi dafay wàcc may ji bi daraame après ñuy def noonu kenn par kenn ba mu jeex xew yi noonu lañ ko war di organiser parce que sinon géwél yi dinañ jaxasoo te waruñoo jaxasoo mm. parce que nag fii kenn mënu fee wax ba lekk nit ñi toog wala nga wax ba yu lekk nit ñi mbaa nga way fa loo xam ne baas yi dañuy naaw nit ñëpp daanu fa dee wala ndox génn fa amul kon nañuy. te nawle daa foor te nawle dafa foor waaw kay nit ak nawleem parce que nit ki bu nee der bëgg a wax nga dagg ko ci ay woy yaa ngi dégg yow tamit yaa ngi war a woy kenn dagg la dafa metti kenn du dagg kuy woy kenn du dagg kuy wax. Mm. kon nañuy arranger euh, programme yi. géwél yi nañu xam ne bu ñu demee xew kat diw moo yor xew ma yaa ngi dégg yow kamay woo man mii dal na ma. nit woo na ma xew man ko kan moo koy way mu ne ma diw moo koy way man ko mbaa xamal nga di ko ko maa ngi ñëw ndax bëgguma xëccoo micro duma duma siifante yi ñuy def man xawuma ko parce que man damaa naqari deret te bëgguma ku ma toroxal ci biir nit ndax bu ma fa cool jegee dama la koy dóor mbaa mbëng-mbëng kon xam nga lan la xew yi nañ koy arrangé kenn doo yow tamit nag sa naqari deret bi nga bëgg a jël imposé déedéet ko de non non man sama la moo tax ma dem fu ma woowul sama teg nga xam nga ñu ci bëri dañuy dañuy dañuy ragal dugg ci ay garde pendo parce que dañ naan pendo dafa pàng da nga koo incarné wala wala lan lan mooy sa dafa nekk ci man dama na xarit deret man man man man man sama maam Mayacine Gueye laa nurul loolu dafa nekk ci man naqar deret boobu moo tax du ma dem fu ma woowul fi may gis nii barki Seydina Muhammad du ma dem fu ma woowul mooy li ma doon wax léegi nii ne la xew moomu noonu xuloo yooyu di am ku fa ñëw dañ laa woo mais géer ñi dañuy xamal ne yow mi yow laa dénk sama xew kon bu heure bi jotee diw bu ñëwee jox ko mu way nañuy jox des fois parce que nag du la jox xew bi rek nga bëgg a wax lépp munoo wax ba nit ñi naaw laa wax. xew ma xanaa xanaa kenn woowu la fa. non non man kenn woowu ma moo deew ma. ci xew mi waaw. ak ni nga dem ak euh, euh, famille Ndeye Fatou Diaga Wally Seck euh, famille famille Faramaren bi yëgal nañ la xew mi. non non non ma ko du yaa ma gën a bokk ak ñoom yow yaa bokk ak ñoom benn maam te demoo luy <laughs> loolu yow. mais mais soo déggee moom loolu. non non man Pendo am na complicité bu mu am. ak ak nga xamante ni moom moom bu bari bari bari bari bari bari du dëgg. waaye man dafa ma fekk ma nekk ma ne ci ay liggéey jàmbur yu bari moo tax deew ma. awa ca am yëgal na la xew aw awa Baba am xaw ma ko. xamoo ko yàlla xam na ne xaw ma ko maa ngi koy doog gis xaw ma ko xaw ma ko awa Baba dëgg dëgg nag doomi Baba ji rek laa ci dégg. diwaale doomi Baba rek laa ci xam xaw ma ko dëgg dëgg nag. ñu ñëw ci euh, ñu liir si euh, l'observateur ñu gis euh, Pendo ni li muy rêvé mooy di way première partie yu Ndour ca si maa la wax loolu de xaar leen ko de. Pendo. Mm-hmm. ñeme naa lépp lool sama fit de romb na sax. yaa ko wax maa ko wax waa Lopes laa wax man maa ko wax man nañu xaar man Penda Guissé man balaa Youssou Ndour di yëg Bercy man ma njëkk a ba pare ma njëkk a way Youssou Ndour ca Bercy ja def première partie. ah waaw waaw <laughs> mais mais yow tam bitiku mag boo gis borom xol ba magasin ci ne man duma fi toog di wax ne non non non bëgguma lii de ni day. gàddu lu baax ban ban ban. osé nga nga nga am ba loolu nga bëgg ko imposer. mais gëm sama bopp la loolu loolu loolu kay du osé Youssou Ndour tey buy dem Bercy mais mën naa fenn gisee moo njëkk a waay man ma ma njëkk a yéeg waay lu si nekk loolu loolu mooy sa bëgg-bëgg mais man sama bëgg-bëgg di ko may la romb naa fii nii wala déggoo lu ma su fekkoon ne tey dama nekk góor di football dama naa la su su subaa mën naa eh, romb Sadio Mané di dem mais du ma ne damay arrière ah. ñaanu ma ko yàlla yow sama bët fii ma ko teg sax dafa sori billaay te bët fi ko fi nga ko teg dafa sori. sori lool xam nga ne romb naa béy si sax ay ay ay Stade de France man ma mën a woy ndokk Rihanna yow mu mu woy kii mu woy ay américain man ma taasu luy loolu. Rihanna waay ay américain yow nga ñëw taasu. maa la wax la wala Beyoncé luy loolu yow. Pendo Bercy. Bercy yow jom man man dem naa Bercy bi. xam nañ ni dem nga Bercy mais way première partie Youssou Ndour di n'importe qui moo ah, def. waaye yow Youssou Ndour di nit mhm. comme nit ñi Youssou Ndour bëgg ku boppam Youssou Ndour man mi la bëgg di. man mii la Youssou Ndour bëgg xam nga lu tax damaa gëm sama bopp man Youssou Ndour warul kenn man lay seet man mii la Youssou Ndour bëgg man sama papa jooju man mii la bëgg maa ko wax kay man <laughs> papa kay bu demaatee biir si nag moom bala moo njëkk a way maa ko njëkk ñam seen bi moom. ñaa wax lii. maa la wax lii. kon neex na Pendo. ñu gis affaire euh, Ndeye Ndiaye Banaya bi. Mm-hmm. Euh, euh, gis nañ jooy yi mu jooy gis nañ tontu bi Sidi Diop taxaw ci kaw seen ni man damaa mën a way Sidi Diop lan nga mën a wax ci lan moo tax moom comme mënul téye ay musiciens woom. waaw loolu nag ñoom problème de gérance la woon su ma ko doon wax tey duma ko wax ne ko mënu ko du moom moo ko mën a gérer mais ñoom ñoo war a gérer waat seen yëf gis nga structurer sa sa sa yëf. dafa weesuwul lu dul potum biir néeg ñu faj ko ci biir néeg yi parce que lii du jooy du du jooy bu bees lii lu yàgg la du dëgg ñoom am nañuy seeni problème nañ koy dañ ko di waxtaane ki leen diriger muy Matar Subatel da leen di dajale léeg bu kenn amee lu ko naqari na Matar def réunion ñoom ñu dajaloo wax parce que li dafa metti si di génn ci ñoom bari na trop du dëgg donc ni ñuy waxtaanee am seen biir rek nday jaay c'est c'est juste un parenthèse da woon rek. Mm. moo doon génn ndax sama rakk la te xam naa ko. Mm. du dëgg. Mm. kii jali jooy nag moo xam la muy jooy. du dëgg kon moom la mu jooy moo ko xam. mais ko ko koo ci laaj rek dalay xamal ni la. damay dem xooli ji loo xamante ne kon ni nga ko waxee léegi rek ne man dépassé naa fii li ci ginnaaw koo ci waxee rek danaan la man damay dépassé foofu damay dem bu la fekkee ne defaloo kenn ku ne am na fu mu nekkoon wax naa si benn interview may leen kenn ku ne am na fu mu nekkoon man mii di wax ak yow am na fu ma nekkoon bi ma demee ba gisatu ma sama bopp damaa dem sama yoon parce que fii kenn ku nekk nag ku am sa kër bàyyi nga jëm du dëgg loo dimbalee sa yaay ngay ut kon nañu fexe ba ñoom ñi nga xam ne que mu nekk ku mu mën a doon même directeur entreprise koo mën a doon ba ñi lay nga mën leen a xam nga lu gën a bon ci àddina defar defar nit a gën a métti ci àddina mooy defar sa nit ba pare mu war laa jariñ nga xoole ba mu jariñ jariñi keneen looloo metti mais Pendo am na ñoo xamante ne ñu ngi fi defar seen i nit ba pare téye leen. waaw mais téye bi xam nga lu ko indi. mooy carrément da leen fay normal fi am na ñoo xam ne man man man man am na fu ma jaar ci ñu ma defar. waaye nag tubaarkaal gisuma ci sama bopp kër yi bu ñëwee damay romb oto yi bu ñëwee daf may romb xaalis bu ñëwee daf may romb du ma dem seeti leneen bi may dem man bi may bi may bàyyi fi doon liggéeyee bi may génn man kese maa demal sama bopp. yàlla rek la àndaloon ak Serigne Babacar sama ñaari waajur barki Serigne Babacar. mooy seen TV nga nekkoon. du sax seen TV yeneen la woon sama yeneen liggéey yu ma doon def mais bi may dem man la ma fa jëlee man xam naa ko. gisoo fa woon sa gisuma fa sama bopp bi oto yi ñooy def maa romb kër yi romb ma oto yi romb ma su ma fa toogoon ba heure bi kon du ma am dara. kon Sidi Diop da nga jàpp ni moom jariñul ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa non non maanaam ci ñoom seen gis-gis soo déggee seen dégg-dégg mooy nekk ñu fa à l'aise comme nekk ko fa à l'aise nag bu fekkee ne tubarkàlla yu baax yi su ñëwee beneen côté la jëm mooy seen kase doyetu leen après da ngeen dem charge yi ñoo bari nday jaay jigéen la te bëgg na lu bari pour defal ko yaayam pour defal ko papaam te bu dee ci fecc moom kase ak kii kase bariwul kase bu baree ba bari vingt cinq mille la wala vingt mille te am xam ne peut-être est nañ ko kase musiciens yi kase yi kase yi kon vingt mille la. déggoo li ma la am na ñuy fay vingt cinq mille am na ñuy fay sax quinze mille kase nga yéeg ci kaw suba ba ngoon jot ngay ngay lëmbal ak fecc ni mu méttee ak musique ni mu nga di ko def musicien dañ koy jooy lu bari boo gisee tax des fois musicien jóge fii dem fii wala xuma sax fecckat de musicien laa wax kuy jouer euh, ok matériel jóge fii dem fii fii dem jóge fii dem fii li koy indi yëpp mooy yéen ñi ñu liggéeyal ñoom gisuñu seen bopp parce que waykat bi nag ci kanam li muy am yow mi ci ginnaaw mënuloo ko am mais boo leen paree ngir yàlla nit balaa ñaqam di fendi war nga koo mën a fay li nga ko yoreel loolu mooy wàlli gor ba pare boo amee tey nga ñëw benn penn gisee ñëw taxaw si kaw seen bi baatare la benn 1 million baatare benn 500000 jours boobu yokkal kase bi mais bu ko mm. rek ci kase kase yow après ngay dox bu oto rafet yi ñëwee yaa koy dawal ese yaa kër yi su paree yaa koy doxal léegi ñi nga xam ñooy musique wala ñoo lay joué la amuñ dara musiciens yi booy seet amuñ dara ah. mm. ñi si am dara mooy ñi si am fullata ak ñi nga xam ne ñoo si jëm kaw mais musiciens amul dara est-ce que kon bu yàggee euh, euh, équipe bu Sidy Diop du du du tas. du sii di kase loolu ñëpp la. Mhm. fépp la am na si ñoo xam ne xoolal ña nga ca guitare ba ak marimba ba tey bu woon seen xol yi mooy dem feneen pour xool. Mhm. nañ loolu pour artist yi yëpp la képp koo xam ne nag muy dem ba gis sama rakk ak muy Pape Diouf ak muy Youssou Ndour ak ñëpp Youssou Ndour lan moo tax ba mu nekkee Youssou ba léegi nii ñi mu nekkaloon rek la nekkal parce que daf leen jox àq ak yelleef dañ faa gis seen bopp moo tax ku ci gisoon sa bopp da ngay def parce que ay ay professionnel la fa ne Pape Diouf da dégg benn musicien bu dem yoonam. ay professionnel dafa nekk donc ñoom nañuy xool ci ñooñ noonu di tey nit da nga koy gee gis nga nit xar bu amul buum day balaak maanaam te ak ak yelleef la joxul ñi mu ànd non du Sidi Diop je parle pas de Sidi Diop focalisé wu si la bosam gën a a gën a ngi dem seen yoon ñu mhm. bëri ay ne peut-être du du siiw guitariste yaa mi ngi dem keneen ak keneen dem te du si Sidi ñuy dem man mi liggéeyu musuma liggéey ak Sidi fa ma nekkoon moom fa jëlee non nit defam loo xam ne. Mm. nit moo koy xam waxuma Sidi waxuma keneen sama wax bi du jëm ci Sidi direct day jëm ci képp kuy liggéey fenn ba ci yow mii di liggéey fii ngay liggéeyee. yaa ngi dégg yaa ngi dem yaa ngi dem dem déggoo sànq may la defar nit moo metti tey da ngay gis télé yi ku defar nitam ku ku xamul kenn ñu defar la ba nga doon kenn ci réew mi borom tele ba xoole foogoon ni moo la taxat star nga da ngaa fuuy nga génn dem ci beneen télé ñu ñu gën la teg place. bu favoriser la merci beaucoup. Mm-hmm. moom laa lay wax ne la. bu buñ ko yemale rek ci di Diop dañ ko parce que peut-être moo am problème ak Ndeye Ndiaye Banda yaa mais dama ne képp ku yor loo xam ne da ay nit a fa ne jëm leen ay fexe ba yor leen as gor boo ko teralee tër ko boo ko toroxalee génne ko réew mi. fii koo torox koo teral tër ko mais boo ko toroxalee génne ko réew mi. Mm, man damaa gëm kuy jox nit ak ak yelleef te ñun Sénégal fonk ñu ku lay liggéeyal nga jox àll gi àq ak yelleef pour moom da nga yor da lay dama yor sama xaaj di la fayaan loolu lañ lay wax mais dama yor sama métier di ko defan dëgg la euh, euh, euh, Pendo ñu gis semaine bi ñu génn 15 août xale yi ni ñu génnee def ful ba ñu gis ci ay li nga xamante ni moom mooy ñiy masturbé wu ak mbott mi nga xam ne dugg na ci kanamu kanamu. mbott bi xanaa électrique la. ah mbott bi électrique la. mbott mi dugg ci. mbott moomu ñuy wane noonu xam man duma si ànd bon nag. mais gis naa ci mbott mbott mi xanaa électrique la wala dañ ko dressé. mbottu électrique dafa am. wala ñu dressé ko. lu tax nga wax ko lu tax nga ne mbottu mi ndax électrique la mbottu man ci ndox laa ko xamal mais mbottu mu ñu teg nii la mu jékki-jékki dugg foofu noonu donc loolu électrique rek la mën a doon mbaa ñu dressé mbottu mi dressé ko ba xamal ko lii nii lii la soo jógee fii fii ngay dem mbott xam nga xaj dañ koy dressé da gis ku ku am xajam bu daw yóbbu ko ñu dressé ko ba boo nee xaj bi tëddal mu tëdd mais mbottu moomu bu dul électrique dañ koo dressé te loolu sénégalais ñemewu ko yaramu sénégalais laa wax xaw ma nag si sénégalais yii nii ndax xale yi def man sama bopp maa moom sama gëm-gëm nag man doxewuma gëm-gëmu kenn gëmuma ne paaka boobu Sénégal la gëmuma ne mbott mi yëfi Sénégal la man maa moom sama gëm-gëm. kenn kuy gëm-gëmal leneen. kon ñi ne du Sénégal yow ci nga bokk. ci laa bokk man gëwuma ko parce que dama ne man sama yaram ni ma ragalee man nga xam ne du ma gis unku ñemewuma mbott dèjà ku xam nga ku ñemewul unku bu ndaw ñemewoo mbott mu fi gisoon léegi mooy émission bi day yàqu kon mbott moomu bu fekkee déressé wuñ ko mbott bi bu dee mbott nekkul mbott yi ñu déressé laa wax électrique la paaka boobu noonu duggul du loolu du suñu yëf ñu pendoo xale yi gis nga seen capable déggoo li man ak lu ñu capable capable man leen rek laa bëgg mooy ñu yaraat njaboot gi xale yi ñu xamal leen ni du ñu ay tubaab te appartement yi ak kër yi ñuy joxe ñuy xool yan xale lañ ko jox sotti bu njëkk danga nga daan gis magale ni yóbbu toggal leen ñu yem ca tefesu géej ga ngor lan doon dem xale léegi dematu ngor maanaam ngor amatul Sénégal ngor amatul ak Gorée ñaar yooyu lañ doon dem léegi BCEAO la ñuy dem wala ay appartement wala ñu dem na lañ koy woowee sax am na ñu koy woowee man ay xale dañ maa ñaan njëgu sorti man leen foo leen jëm ñu ne dañuy luwe kër ay xale dafa ay parental suñu koñ. dañuy dañuy kër kër gu am piscine man ne dëkk la kay. ñu ne dañuy luwe kër gu am piscine dañuy luwe kër kër gu am piscine man ko mbaa mbaa doo leen fa def yooyu ñu xewal léegi. da nga ne ngor bareetul moo tax kenn dematu fa sorti. kenn dematu fa sorti. xale nañu yaraat nit euh, nañu yaraat seen doom yi wax leen duñu ay tubaab. su yar bi xale dañoo bëgg foogoon ni ñu ngi ci beneen monde la ñuy nekk pare yenn saay mais man moom dëgg-dëgg li ñu wax ci quinze août bi nii man maa moom sama gëm nag laa waxee waxewu ma nag gëm-gëmu kenn xam nga Sénégal dafa méttee wax. sama gëm-gëm la man. Mhm. ak sama principe mbott mi bu fekkee dressé wuñ ko. mbott mi du électrique gëwuma ma ne image boobu Sénégal la xewee. man sama bopp laa wax. gëm-gëman ñu gis la ci ci ci ci ci euh, Alassane Mbaye mu di yàlla maa jigéen. ñu xam ne ñu ñu gis ni alsaan Mbaye bari na ay éléments yu fa nekk lool lool lool. mu mu bëri fa te danga ni doo woo fuñ la demul. ña fa nekk est-ce que xëccoo bi nga gis am na ci côté Alassane Mbaye. gisuma ko fa nag man Amady yàlla maa jigéen man man man man su ma ko woowee daf may jël su ma su may su su gisee sama appel en sant daf may woo moom daf maa ràññee ci biir nitam ndax maag Alassane Mbaye démb la du tey yàgg na muy nit ku baax nit koo xam ne tubaarkàlla xàmmee na ràññee na. du dëgg jabaram bëgg ma man maa njëkk bëgg jabaram nag maa est-ce que pendoo xaalis bu bari bi nga gisa tax nga way nga way nga way maane bàyyi bi may bëgg alsaan xaalis amul fi woon gisu moon lii nii mais nii mu tabee nii la tabee woon te boobu li ngay wax nii xaalis bu bari bi man sénégalais sax ñooy gis xaalis bu bari man gisuma xaalis bu bari xam nga lu ma gis ngor gaa gën a yokk tabe baa gën a yokk man loolu laa gis. waaye Pendo fi mu ne alsaan ku jóg ca moom ngay jubal yi moog faramaareen bee yam. waaw ñu gis la ci gisoo woon xaalis à l'époque mais jamono ji ñu toll bi nga gis nga xaalis bi. bu ñu ko euh, mais xam nga alsaan fi mu toll alsaan a a Makka. alsaan yóbbu xale yu a ngi génne alsaan bi muy nit ñi màkk ma may la tuuti rek ci lool bi mu yóbbu nit ñi màkk boobu boobu réew mi TikTok amagul. parce que bi amee la ñu xam alsaan. mais dafa yokk Pendo ah mais bu yokkoo. mu ngi noonu léegi nag teraanga di yokk moo ah. tax nga fent way wi. non man déggoo ndax ba nga xamante ni ñu woon as ak. ba moo woon ba nga xam waaw booba génne boobu wayoo maane de. déedéet kaay boobu wayoo maane de. ah yéen nga ne Alsaan may ànd ak moom ba léegi ci nii laa ko xamee yéen li ngeen di gis nii léegi nii man bi may ànd ak Alsaan Mbaye loolu laa doon gis heure bu anniversaire ba pare cartable la yore ñu toog almadi barki xalifa Ababacar si du ma fenal ku yàlla bind li may wax ñaa ko doon def ñi ngi dund xam nga lu neex waxal kuy dund ku dee nag neex naa fenal waaye kuy dund neexut a fenal bi may ànd ak Alsaan Mbay nii laa ko xamee ay xaalis ba dafa yokk yéen yéen a gis léegi xaalis bi nii man bi may ànd ak moom ci nii laa ko xamee nii. mel mbaa léegi lu tax booba moo yoo woon maane. déggoo li ma la wax boobu xaw ma maane boobu Alsaan rek laa xamoon ak jabaram bi nga xam ne moo gaañu maa ngi koy euh, ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te yeexeñu. boobu fentaloo woon kooku dara jabaram jooju. non non non boobu est naa sax boobu woyeguma bi may bi may ànd ak alsaan boobu woyee gu woy wi nga woy maane fan nga ko teg. fi ma ko teg mooy fi ma alsaan teg bëgg ma maane mbaay sentir ma ma woy ko ma woy ma woy lii da laa def. lii nga def te teg ci maa <laughs> teg ci. maa tay. waa xam nga lan la xam nga yow dangaa bëri danga dangaa bëri defante beneen bi ci topp mooy. Pendo Diassou Sare xanaa moom rek moo ne ci digg réew mi nag lu mu wax ni Diassou Sare Diassou Sare Pendo Diassou Sare mi nga jël. ci teg ko ci sunu kal euh, pour lan la jaas sare mi nga teg ci suñu kaw tamit. jaasu seen kaw lay tegu chaque jour kooku noonu kooku li nga nawle daa foor bi Ismaïla Mbaye wax kooku loolu la xam sama digganteeg moom nawlee foor barki Muhammad Sénégal li riir mi di bari yëpp. mais jaasu danga ne maabo la. jaasu pire. waa lan moo tax foo toll rek yaa ngi sàmba mbayaan jaasu. sàmba mbayaanu ma ko dafa di sama mag muy gis boppam ci man jee bu sañoon tey barki Seydina Muhammad Rasulullah immeuble bi gën a mag Sénégal maa moom te moo ma koy may. barki Muhammad Rasulullah kooku bu sañoon tey Sénégal ba mu daj duñ déglu woy kenn man la ñëpp di déglu. man xam nga xam nga ci say biir yi wax danga ne nañ bàyyi géwél yi wayaanante ci seen biir. man jee wayaan ma ko sama mag la nañ bàyyi géwél yi wayaan te jee asu maa bu kon yow. moo ma dàqa way moo ma a way. jee ci bi. moo ma dàqa way moo ma ëpp expira inspiration xam nga li naan loo bàyyi mu bàyyi dafa dem ba États-Unis rek nekk. Euh, euh, euh, du business bi dugg ko mu bàyyi léppam léegi nag yoona moom doon dox man ma di ko yeggale kon su may xool moom boppam lay gis. jeesu xaalisam fan la ko jëlee. ah luy loolu yow. jeesu bi muy dugg Amérique xam nga ba jeesu ba naan la dugg Amérique. Hmm. jeesu bi mu nekkee Sénégal fii la mooy li nga wax sànq ci Alsaan Mbaye moo tax yéen li ngeen gis tey rek ngeen di wax bi TikTok amee Grand Théâtre Paris si la ñu xam Alsaan Mbaye waaye dama la wax jeesu sare Sénégal fii la njëkk a dëbb ba mu mokk bala moo dem Amérique jeesu Amérique mayu ko xaalis Sénégal gi fii la ko commencé. Pendo lii lañ la invité woon tey ci biir déedéet du yeggee noonu déedéet Omar <laughs> yàlla maa jigéen xool li mu ngëp Alsaan xool li Alsaan Bay téye ci loxoom lii bi mu koy téye lax déggoo li ma lax boobu yéen Sénégal kenn xamul kan mooy Alsaan Bay man nii laa ko xamee nii nii nii muy joxee muy yóbbu nit ci xam parce que TikTok moo am léegi mais nag Pendo sa Alsaan Bay da nga ko faral rek mais xam nga ne Alsaan Bay bu njëkkoon boobu nag wax dëgg yàlla demeewul woon ak nii barke Sëriñ Babacar Si laa la may xam Alsaan Bay muy anniversaire ba pare di woo chauffeuru maire yi di ko doon aw noonu kaay allo waaw wol sa chauffeur mu fekk ma fii ma jox la wol sa chauffeur mu fekk ma fii ma jox la barke Khalifa Ababacar boobu du tey kon or yi muy jëndal jabaram ko yor sa jabar teral ko et alors. te lépp naturel la. dama ni ku yor sa jabar teral ko. kon Askia Touré buy wax si ngooy sa xol du sedd yow damay laaj. non non non sénégalais yi chaque jour ak ak ak version yi ñuy jaar defe nañu lii lépp du du nekkul loo xam ne ma ne bay boo xoolal nañu jël version bu leen neex ñu teg ko loolu ñoom sénégalais de toute façon amuñu lu ñu lekk mais am nañ lu ñu wax mais loolu I don't care Alsaan Mbaye or yi muy takkal jabaram ku ko amoon takkal ko sa jabar góor gu ko takkalu sa jabar danga koo amul dafa nekkul sa poos mbaa yéene woo ko sa jabar waaye ku yor sa jabar nopp ko maa ne mbaay mu jongo ma mi nga xam ne wii bu ko takkee day dem nga takkal ko mu wër waaye yéen leen mali yeey li ñuy takk xanaa gisoo sama waa ji jey na ba daabo mbaalo daabo lu ñuy takk xanaa gisoo jeex sar lu muy takk ku yor sa jabar teral ko fii ku fi teralul sa jabar boo geesoo gis sa beneen moroom bu teral jabaram teral teral jabar dafa xew moo tax yéen ngeen doogu gis alalu alsaan mbay maane mbaay bu génne rek yéen seen xol dafay xaw a dafay metti ñenn ñu mel ni yow sama xarit bi bugguma la woon tooñ mais il ma ma laal la mel ni yow déedéet bul mer taxawal dama koy yeggale fi nga ma dafa dafa dafa tàng ay ca jee asu yaa ngi koy gis bu baax di may ay oto. Mhm. may ko koo xam ne ay day wër ci mbedd yi ku feebar mu jël la. seen mbokk la pourtant seen mbokk internet la. jaasu dig na ma oto sax te ci yow lay jaar dara joxu la oto joxu la <laughs> yow lay jaar oto bi yi muy def ñi muy faj ñuy feebar. Mhm. guddi mu di ko gérer sénégalais yi il faut ñu xam ni du li muy wone li muy wane jigéen ku ko am sagal ko. loolu loolu loolu kenn weddiwu ko. waaw ah. xam nañ ni jigéen ku ko am. sagal ko léegi nag Sénégal mais guddi yu ñu toll. guddi yu ñu toll alsaan mbay. faaw ñu wax ci moom faaw ñu wax ci jabaram parce que nag mi ngi noonu foofu nag la waxe mais nag xam nga ni jigéen ku ci nekk li xam ne mooy xaritam di bëgg-bëggam mooy takkaay non non li ma wax mooy dama ne la sa diggante ak alsaan ci lañ doon wax sa diggante yow ak alsaan ci lañ doon wax takkaay bëgg naa kay alsaan ah, ah, ah, kay xam nga ni moom xam naa ko bëgg takkaay maana mbaay da nga jaar maana mbaay may ay jaara yu roo eh, maana mbaay ñu ay jaara yu ak may la waaw nañ nañ ku mu may takkaay nga jël. Ah, parce que nag moom Alsaan danoo xew loolu la yàlla def. Ah, kon jeex na ah kon jeex na ak Dias Sare nga toftal ko ci. waaw Dias la oto. Dias a changé te changé gul <laughs> bu yàq sama sama mais ah kon yow sa bos ngay kartal balaa ñuy changé sa bos foog man ma am ba pare. moo tax man moo may changé. waa léegi bu loolu na yëpp xaj na ci du dëgg waaw <laughs> loolu yëpp baax na. waaw lii lañ leen indiloon tey eh, ci émission bu mag bii nga xamante ni moom laa àndoon ak pendoo damay daal di bàyyi Pendo rek mu daal di tàggatoo mbokk internet yi ko doon seetaan. waaw maa ngi leen di gërëm na di leen sant du xuloo nag xam ne ñoom tam ñu dàkk ko ne ñoom Pendo dañoo xuloo kii. journaliste waaw gaaw waaw xuloo animatrice wuñu kii Faramareen la sama xarit la. wallaay bii ki ko moom borom dama koo bëgg na dafa am personnalité am dignité du dëgg mbokki internet yi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm Marème Soda bi ma àndaloon du dëgg leen wax ne leen papa Lamine ñaan ak moo ma solal lii tubarkalla macha allah màkka la jóge nitu màkka bi di gërëm ñëpp gërëm sama xarit yëpp di gërëm ñëpp nag sama xarit yi maa leen. sa nawle yëpp nawle daa foor. daa foor sama nawle nga de te nawle foor na rek jee asu nawle foor na nawle foor na jee asu sama nawle nga de sare maabo ah nawle foor na rek. wax loolu mu dégg ko mbokk internet Sénégal set ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye nag damay gërëm Pendo. Euh, ci disponibilité bi nga xamante ni def na ko ñëw fii Sénégal 7 euh, ñu koy gërëm di ko sant ndax nag amoon na tuuti difficulté mais dawal na comprendre dawal dawal comprendre na lépp daal ba ñëw ak sagoom ñëw def ci émission bi euh, pendoo ku yaatu nga nit ku mm. baax nga yal na la yàlla fay nit ki boo ko jegewul doo ko xam nit ki boo nekkul ak moom doo ko xam waaye nit ku simple nga nit ku baax nga ndax kon ni ma ko waxee woon rek compréhension bi nga dawal. du yàgg sax naa ñëw liggéey si fii barke du yàgg. naa ñëw liggéey si fii. ñu ngi lay madame Ndiaye ngi lay dégg de. madame Ndiaye na ma woo suba signal ma contrat ba xam du ma ñëw ci émission bi ñu ñett ñettee ko. émission jaljali ngay ñëw. jaljali laay ñëw réel. daal di koy toj. réel la man maa ngi réel bi. madame Ndiaye dégg na la. xam nga yow boo ne jaljali. Mhm. boo nee jal kee ne jaljali. rama bu ma nee jal ramane jal jale yow nga ni réel kon foofa jeex na ba pare ah, madame Ndiaye na te xam naa ne bu la déggee mm. mooy numéro bi yegg na ci junior mooy madame Ndiaye woo na la ah, nga ñëw Sénégal set ndax nee naa la nekk fi mm. moo gën ñàkk fee bañ a ne ah. ndax xam nga eh, ni Sénégal set bi nga duggee tubarkal la ndax xam nga ni yaa ngay majj majj tubarkal maa la wax loolu plateau yi ak loolu plateau yi rafet na te caméra la maa la wax loolu borom dafa am maanaa <laughs> personnalité toogaayam daf may daaneel parce que nag kenn du ko yab toogaayu kan toogaayu borom fii. waaw kenn du ko yab. pam nga gis nga li ngay gis si moom. looloo ne ci man bu jigéen barki Serigne Babacar si. ban garde waa garde xam nga dafa am trafiquant de personnalité. trafiquant. de personalité Pendo waxati nga dafa am ay trafiquant de personalité maanaam léeg nga gis ni toog nga foogoo ne am na garde fekk amul garde Pap Ngañ da koy xool barki Serigne Babacar Alaaji Malick rek laa gëm duma ma fenal mi ndéef ñoom ñaar laa ko gis. dama seetlu seen bos ñeneen ñu seetlu ma amaana seen bos muy Pape Ngagne Ndiaye ak Birane Ndour garde xam nga dafa am ñoom fausse garde. Hmm. Pape Ngagne Ndiaye dafa am garde. maanaam doo ñëw tëb rek. waaye garde loolu loolu xam naa ni doo ko gaaw a seetlu nag yoo xam naa ci boobu ñu xale nga. non non nga wax nag moom la ñu jalis ñun. ba nga xamante ni noonu ma am noonu. dafa am mhm. lu ndaw lu ma ci am dafa am lu ñu niroo. te ndax dafa bari ay trafiquants de personnalité yu ne ci réew mi yoo xam ne dañuy am am lu garde di garde garde lu toppandoo Pape di Pape Ngagne Pape Ngagne. man trafiquant pour man drogue rek laa ci xam. non non non trafiquant de personnalité dafa am ñoo xam ne da nga jékki-jékki des fois nit ku lay woon dama am garde te amul garde boo duggee doo fekk dara. di tiitar Pape Ngagne boo duggee da fay fekk lépp carré dama koy seetaan barke El Hadj Malick ak Birane Ndour li muy doon doon doon xale dafa am garde. yi ñu baal ma ñaar ñooñu rek laa seetlu ñeneen ñi naa leen seetlu xëy na prochaine fois moo fi ñëwee ma wax yeneen garde yi mais ñaari garde yi. dañuy tàggatoo teg na Alsaan Mbay teg na Faramaare léegi Pape Ngagne ak ak Birane Ndour. ñoo garde ci garde bi ñuy wax noonu. foofu jeex na garde eh, Pendo lii la def tey bi bëgguma ku am garde laa bëgg. <laughs> trafiquant de personnalité loolu lañ leen indiloon tey eh, ci émission bi maa ngi eh, gërëm ñëpp. di sant ñëpp di gërëm nag surtout mbokk internet yi nga xamante ni topp ñu fenn demuñu fenn wutiwuñu fenn Sénégal set rek la ñuy topp di gërëm ñëpp ñu nekk ci région bi bàyyiwuma kenn di gërëm ñëpp waaye di gërëm ki nga xamante ni mooy xaritu Pendo dama koy gërëm di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax moom it kenn du moom nekk ko mareem nga ñàkk ñaan loolu maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla defal la jàmm guddal sa fan bàyyi la ak Pendo gisee di ñaanal ñëpp jàmm di ziar ñëpp waaye nag Pendo dafa am loo xamante ni foog ma tëji ko mm-hmm. ndax sama mag ji nga xamante ni mooy alaaji daaw Daawda Seck mi nga xam ni àdduna wërngal këpp kenn dootu ko fi présenté mm. dafa làqu ñu tuddee ko dibiteri bu mag bi nga xamante ni mm. ma nga fee ca euh, euh, cité alin Saw mm-hmm. waaye ma nga ca marché Sam mm-hmm. dañuy jaay yàppu xar yàppu nag mm-hmm. dibiteri bu mag bi nga xamante ni macha allah képp ku bëgg lu baax rek muy mbër yi di animatrice yi di ñi nga xamante ni ñooy journaliste yi non mbër yëpp fa la ñuy dem di fa la moom boucher la woon bu mag ñu ubbi dibiteri yi mu tudd dibiteri Serigne Fallou waaye daaw de sekk ñu tuddee ko ko pendoo loolu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te ngeen di dem ci dibiteri ba di comme moom lañ ko tuddee tubarkal nekk nañ ma yónnee nag du xam nga sama kër Malick Seck fa ne dañ la ko yónnee nekk du ma wax lu ma gëm lekk ma jëndal wala du ma du ma non lii lañ leen indiloon jërëjëf